sëriñ Tuubaa day jëmm joo xam ne teel naa bind lool ndax bi mu jàngee li mu war a jàng ci diine te dégg ko déggu wér te sell daa taxaw temm ci bind ngir jàngale kon bu nuy wax xeeti mbindam mën nañ ko seddale ci ñetti xaaj bayitam wii rekk dugal na xeetu mbindam yépp muy wax gi mu wax ne sama borom gindi nga sama njaboot ci sama njàngale mu jëm ci pas-pas ak sama njàngale mu jëm ci tasawuf ak sama njàngale mu jëm ci fiq noonu it nga leen gindee ci zikar yi may def ak salaatu yi may def ak julli may def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolem xeetu bindi sëriñ bi bayit woowu dugal na ko xaaj bu njëkk bi ci ay bindam nag mooy li mu bind jëme ko ci jàngale loolu ay mansumaat lañu koy tudde ñoo di téere xam-xam yi téere xam-xam la yoo xam ne daay ñëw fekk ko fi te mu nekkoon mbindum weesaar téere yooyu dañoo baaxoon a gudd lool ba nit ñi tàmbali leen a wan ginnaaw ba sax téere yooyu mën naa doon wax joo xam ne day fasu laaj fecc ak leeral sëriñ bi ñëw way ko téere wesar yooyu nag lay jël di ko way tënk ko lool nag boole ci tëdd ko teeleer loolu lay wax ne maa ngi yeesal tawxiid ak fiq ak tasawuf gi nga xam ne dafa làqi ngeneel jaddidu tawxiida wal furuuca maa tasawufin xawaa buruuca dellu wax ne taalifi sama sang yi laay yeesal ngir laa ci mbindeef bi te yàlla rek tax yàlla mi nga xam ne moo yëkkati sama daa ak sama xalima tawaalifu saadaati ujaddidu naasixan li wajhi llasi ala midaadi wa marqami mu del wax ne warloona taalif yoo xam ne bu soobe yàlla dana gindi ku dul ab yonante alaya tawaalifu allati yahtadi biha ida shaa rabbi gayru man faaza bil waxyi mu del wax ne sama xol yéene naa génne bu baax ay xam-xam ngir yàlla xam-xam yoo xam ne day wammat kuy jàng ak kuy jàngale nawal qalbu minni basa ilmin yaqulu zat taallumi wa taalimi lillahi di daxi kon loolu lañuy wax téere xam-xam yi bayit yooyu yëpp loolu lay leeral téere xam-xam yi mbind tey mbind muy mbind yu mu fekk mu di ko yeesal am na ci mbind xam-xam yoo xam ne da ko bind ci anam ak tontu ay laaj am na ci yoo xam ne it ay dénkaan la ak ay laabiire yu mu jëmee ci ab taalibe ba mu doon sax loo xam ci taalibe yépp la jëm yooyu nag am na ci yoo xam ne ay wesar la am ci yoo xam ne nii ay way la kon loolu mooy xaaj bu njëkk bi ci xeetu mbind sëriñ bi day mbind yoo xam ne lépp dafa làmboo jàngale wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa